مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي salaamaaleykum mbokk internet le Rufisquois point info ànd ko tukki point org ñu ngi leen di ziare bu baax di leen dalal ci seen émission spéciale Mawlud seen mbokk seen xarit Mamadou Diës bu Diouf am mbégte ak kontaante lool di leen dalal ci seen émission spéciale Mawlud ñu am gan gu mag comme niñ ko waxee saa su ne di ànd ak moom.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 اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والحات لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومهدار العظيم بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غنابون سنتي الله جولي جي سنغو سنغي موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيو ديكار ريك نيوات فيغا خامتاني نيغي سونو دوزيم بونتي تشي بوردو بيغا خامني Mouhamadul Bouchayri moo ko tëgg jagleel nu ko ci barke maam Cheikh Seydil Hadji Malick ñu ñëw tey fii ci le nga xam ne ñaan yàlla lépp loo xam def nañ ko fi yàlla na ko yàlla nangu jiital nuyoo bi tamit kilifa gi nga xam ne moom moo mbir mi di ñaanal ak ñamu nekkal ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm di ñaanal weejuram tamit yàlla na yàlla may ko dund dund ba faw manu tane waaye yàgg fi loolu mën na ne ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري وقل عقدة من لساني يفقه قولي بكي غناو بن سنت يالا دي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يالا ميغا خامن موم رek moy tianta tabaarakallaahu ndax la in sakartum la azidannakum yàlla ne boo leen sante ma dolli leen di julli si sayyiduna muhammad yi nga xam ne yàlla moom rek la moom rek la sopp ndax yàlla ne woon ibrahima wa taxasa ibrahima xalila man yàlla maa jàpp ibrahima muy sama xarit waaye boo may ku may sopp nag sayyiduna muhammad laay sopp tabaarakallaahu di leen ziar di leen nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp suñu émission bi di ñu ko topp nag si info Lerefisquois tabaarakallaahu info di leen ziyaara di leen bége di nuyu suñu yaay faatu tabarakallahu ak ñi ko àndal ñëpp ko defee rek ngeen xaar ñu léegi incha allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ni ñu leen ko waxee léegi ñu ngi ci deuxième numéro ci seen euh, émission spéciale Mawlud euh, balaa ñoo def dara dañuy bàyyi oustaz Abdou Karim mu barkeelu lu jëm ci wàllu deuxième bunt bi nga xamante ne mooy mooy burdu waaw ñu bàyyi oustaz Abdou Karim mu dalal mbokk internet yi ci ci ci ñaareelu bunt bi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 صل وسلم دائما ابدا وعلى حبيبك خير الخلق كل فإن أمارتي بسوء ما تعظت من جالي أبي نذير الشيب والعرم مولاي صل وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كله وإن أمارتي بالسوء ما طعذت من جالها بنذير الشيب ولها رمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا وعلا حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعادت من الفعل الجميل القراء ضيف الألم برأس الغير مختسم مولاي صل وسلم دائما أبدا وأبدا حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سر البدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما ابدا وعلى حبيبك خير كن من لي برد جماق من هواياتها كما يراد جماخ الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما مصطفى على حبيبك خير الخلق كلهم كن من لي برد جماخ من عواياتها كما يرد دماء الخيل باللجوم مولاي صلم دائما مصطفى على حبيبك خير الخلق كلهم كن فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يخوي شهوة النهيم مولاي صلِّم دائما مصطفى على حبيبك خير الخلق كل لخوى النفس كالطفل إن تهمل صب على حب الرضا إن وإن تفطمه ينفتمي مولاي سلم دائما صلى على حبيبك خير الخلق كل كن فاصرف هواها وقادر أن توليه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 ñuy bàyyi xel bu baax di jagleel ay nuyoo ku si mel ni Yuma Aysa Ba euh, depuis États-Unis waaw di di ko nuyu bu baax di ko ziare waaw di di am mbégte lool euh, mel ni mën nañoo jàll ci euh, émission bi waaw ci lu jëm ci wàllu waxtaan bi am na ci point yu ñu nekkoon yu ñuy bëgg oustaz daal di wéyale waaw lu jëm ci wàllu deuxième deuxième buntu burdu waaw oustaz ñu bàyyi la nga wéyale ci tuuti tabarakallahu nu doli sant yalla ñaan yalla yalla nu yalla nangul ci barke maam Cheikh Seydil Hadji Malick mi nga xamne mo nu baxé ci li niñ ko waxé rek bi passé li tax Seydil Hadji Malick damay faral di wax ne bushairi bu ñewoon dina ko delu ndax it mom mo tax ñu xam kon moy bushairi mu melni rek burdu mom xewal ya ca nek begg ga ca nekk julli ci yonenti bi rek la ko Buchayri yi def mu melni gis nga bunte bi nuy jangale ak Abdal Karim jangako bunte bu yeme la ci walu nafs fa inna amarati kholal Muhammadul Buchayri bi suu gis nga bakken ci jëmi boppam dafa yeme ta Muhammadul Buchayri na fa inna amarati bi suu ma tahaza kholal nafsul su moy li nga xamne mom Muhammadul Buchayri neena maa taxasat ba kenam ci jëmi boppam wóoru ko li jëxli ngir réer mu réer li ngir réer ga mu réer ndax lan nit ki di nga topp sa bakken nga topp àdduna dem ba bi jaaw yow xam nga ne sa àddunaa ngi jeex waa boo sa booleek mag moom la bu Muhammadul Busayri wax ci bërëméer bayit bi kon bakken loo ko bul ko nangul mukk mu lay diriger chaque jour rek fu mu la jëme bañ ko ndax bakken lu doy waar la wax na nu démb ñu ne keroog bakken ba ko yàlla bindee dane ko maay kan mu ne ko yaay yow yaay kan mu ne ko maay man dañ si jaaraare ndax bunte bee waral lool nu jaar ci waaye bu fii yàlla bëgg a jaar rek moom bakken xamal ko ne ko moom mooy boroomam te moo ko bind wax nañ la bind na lu ñuy wax mbugal tàbbal ca bakken nangam ci at waaye ba mu génnee bakken dane ko yaay kan mu ne ko maay man yàlla ne ko maay kan mu ne ko yaay yow waxul yàlla ba tey yaay sama boroom waaye bi yàlla bindee lu ñuy wax xiif tabbal ca bakken weer la ca am tëfale ay at la ca am waaye ba mu ko génnee dana ko yaay kan mu ne ko maay jaam bu doyadi bi maay kan mu ne ko yow yaay buur bi yooyu jaamu kon sa bakken Mouhamadul Busiri la mu la bëgg a wax ci fii xoolal dem na balay wax na bakken comme xale boo xamante ne ni wéejuram dafa jóg pour feral ko gis nga xale boo ko feralul même jour biñ ko ferale sax da ngay jékki saay rek xale ba si guddi gi dina la yaay dama bëgg a nàmp di opposé bëgg nga nàmpal ko mu ne woon bakken comme xale rek boo xamante ne weejuram feral na ko tawit boo ko feralee guddi goo ngeen tëdde dina bëgg a nàmp dina lu sonal yaay dama bëgg a nàmp te am na ñoo xam ne sax dinañu feral seen doom doom ji nag li mu leen di wax ci bëgg a nàmp dina tax sax ñu joxat ko weer wu mu nàmp waaw di leen ko joxaat wenn mu namp moo tax bakken da nga koy fu mu la jëmee bañ ko bakken fu mu lay poussé bu nangu tey bu fekkee sax da ngay xuloo bakken ñëw di la jàppale sax déedéet lu mu la digal nee ko waaw Mouhamadou Boucher nee na lu la bakken digal nee ko waaw waaye boo paree na nga xool leneen loo def ndax lu mu la digal rek am na leneen lu mu lay pareel si suuf kon bakken lu doy waar la moo tax yàlla ngi naan yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لعد وهي wattaqu ان الله llaaha بما تعملون وهي ولا تكونوا كالذين kallaziina الله فانسيهم انفسهم اولئك هم الفاسقين قال لول ريك loolu nga bakken lu garaaw la xam nga tay mak mu yor bi jaw wextal ak bi jaw nga gis kam yor cigarette lolou doyna war waar bakkenam la top legi rek bo xolé ci télé bi sank ñu ngi wax juroom ñenti nit ño xamne ñu ngi leen jàpp demba Dakar ñuy lef lan di sere bare loo xamante ni góor ak góor xam nga loolu seen bakken moo leen yóbbu loolu jàpp nañ leen ba leen moo tax bakken bul nangu mukk mu diriger la yow toujours rek bul ko nangu lu mu la digal bu ko nangu ci àdduna waaw bakken lu doy waar la ku sànku ëllëg xëñ na boo ko toppee mën na la sànk moo tax moo Mouhamadul Bussi dafa jël bakken wax loo ko ne la foo tollu del tàggat sa bopp gis nga ruux da koy defar ba mu sell ruux nag la koy dundal mooy kalimatu laa ilaha illallah waaye soo gëmul dara nag yow toppal sa àdduna topp mu bi rek foo tollu rek ba kenn bu la diriger rek da ngay sànku su lay diriger da ngay sànku moo taxit saa su nekk doomu aadama dañu war a xam ne yàlla li mu nu binde daf nu wàcc ci àddina jox nu xel gis nga yàlla daf la jox xel ne la deel xalaat waaye conscience bi ci yow moom ngay demee ak sa nafsu sooy jiital conscience bi rek dama ne la bakken mën na la bañ a déminer waaye soo ko bàyyee rek mu déminer la moo tax nga gis des fois nit nekk ci erreur wala nga joteeg nit ñu attale nga ne déet bàyyil dama koy def nangam ba nga yëkkee jam ko diisoo ak conscience bi parce que sa naf sore nga topp mais boo ko jamee ba pare nag wëlbatiku bëgg wëlbatiku diisoo ak conscience mu ne la déet sa trop tard xam nga fa nga jëm parce que wees na moo tax bakken il faut nga tàggat ko da nga koy tàggat maam Seydil Hadji ba muy ñëw Tiwaawan lan la fa fekk naankati sàngara demoon na ba booy naan sàngara fii ci Sénégal soo demul naane ko Tiwaawan dañu la naan yow doo dara bokkoo ci gaa yi mooy capital ba ñu daan naane sàngara ñi daq naan sàngara ci réew mi foofu la doonoon ceddo doy fa la ñu nekkoon moo dañoo instauré seen dëkk si biir dëkk bi moo tax ba may waxtaan ca géejawaay waa ji na ma Seydil Hadji Malick moomul Tiwaawan ma ne ko waaw yont yàlla Muhammad fan la juddoo du mag waaye xool madinatul munawwara yasrib la tuddoon waaye ba fa nabi tuddi duggee la tudd dinatu nuur waaye tuwaawanu ceddo ma ne ko Seydil Hadji Malick yoonam newu ca waaye tuwaawanu diine maam Seydil Hadji Malick moo ko moom te xoolal yi mu fekkoon foofu ñoo xam ne dañu toppoon seen bakken di ub làmba yi di tëgg sabar yi di def lu ne yàppa lañu xam ak jigéen ak naan sàngara topp seen bakken Seydil Hadji Malick téye leen indi leen ci moom defar leen ba ñuy lal manaanu wasifa ya ñooy nodda ca jàkk ya ba tey xoolal fa mu dëkk kon nga xam ne bakken dalay sànk ci lu bari dalay sànk ci lu bari te nun ñëpp war nañ bàyyi xel ci moom dafa doy waar bakken lu yéeme la lu yéeme la bakken fi mu lay dugal doo ko xam mais boo fa xasee ba dugg ci kàmba nga xam ko moo tax Mouhamadul Bouchayri dañ koy sant ah, parce que li mënu nu faggul kenn xamul lu mu doon li mu nu kenn xamul lu mu doon parce que dafa lay wax yow toujours rek tàggatal sa bopp na nga tàggat sa bopp moytu bu baax fu la bakkan jëme donte ne da ngay histoire sax mu ñëw di la jàppale Mouhamadul Busayri nee na déedéet bul ko wuyu ndax fa muy jëmee si ay jëmeeg yow rek mu ngi lay kàmbal fa muy jëmeeg yow dalay lay or or la lay mujjee ndax bakken mënu la digal leen mais nag boo xeexeek moom ba téye ko incha allah yàlla mën na la dimbali ndax yàlla ci jëmi boppam waxu la kenn lu dul boroom xel yi tax démb nee naa la lu yàlla bind doomu aadama moo ko ci gënal lu yàlla fekkoon ci li mu bind lépp na leen lu ngeen bëgg ma def leen ko da ngeen ko naan def ma nit ndax moo tax ma ne woon démb yàlla na nu yàlla fayal yàlla ndaxit baatum lan nga nga tël sa loxo taf sa dënn ne man nit la kooku kenn mënu ko fay yàlla waaw moo tax il faut nu bàyyi xel ba kenn soo koy bàyyi xel سخل دي دمسي إن جهنم كانت مرصادا للتائين معابا لابسين فيها أقابا وهي لا يزوقون فيها بردا ولا شرابا وهي إلا حميما وعصاقا وهي جزاء وفاقا كيسنا يلا اللي كومو فاي كومو جوخ دينا خمنا لي ياكو لجي موتا بكين دفا دايوار موتا محمد البسيري نيوشي بچي بير نالان بكين بوبو اللي من نالا سانك بنغا دوغو ba pare nag boo rëccoo ci biir si ngay doog xam ne yow def nga erreur bu mag moo tax gis nga il faut que nuy jëm a tàggat ak moom xam ne àdduna bi nu yàlla wàcc wàcci daf nu wàcci jox nu xel waaye itam ci biir xel mi gis nga yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dem ba nee naa la Seydil Hadji Malick bëri na ko mu raw ci nite la la rawee waaye da daan utiliser kii moo tax gisoo ku ñuy wax lan sëñ Hadi dégg nga ko kooku xam nga sëñ Hadi kooku xam nga kan mooy bàppam maam Cissé Touré moo ko jur feesoon ndel biñ koy yóbbu ci maam Seydil Hadji Malick ba mu ñëwee fekk maam Hadji Malick toog mais ba mu ko fekkee mu toog te peeg ne téere yëpp Maodo naka noo def ak alxuraan mu ne ko wattu naa ko noo def ak mu ne ko wattu naa ko xam nga lu ko Maodo Seydil Hadji Malick wax fa mu toog mu toog naka jàngal ma Fatiha ki jéexal téere yëpp te du toog semaine bu ne. ba mu gisul yont yàlla Muhammad moom sëñ Hadi Touré mais ba mu ñëwee ci Maodo Faatixa la jàng aaye bu mu yëkki Seydil Hadji Malick nekk déedéet moom mooy nettali nee na Seydil Hadji Malick boo xoolee dundinam soxlawul woon mbubb mu rafet ngir daw bakkenam xeex ak bakkenam ñu ne lan la soxlawoon mu ne mbubb mu laab mu ne bëggul woon añ bu neex ñu ne waaw sëñ Hadi lu tax mu ne Seydil Hadji Malick añ bu lew la soxla woon xam nga loolu yëpp mu ngi daw ba kenam te noot na ba kenam ci lu neex maam Seydil Hadji Malick ndax di nga dégg ñu ne la masul lekk yàpp kon la bu Bichri yi wax ñëw na masul naan soow boo ko tànqalee ndox mi ndoxum kase boo ko kéwee mën na jël xob yi xob yi ni waa ki nin ngir noot ba kenam ci lu neex moo tax soxnaam toggal na ko bés ñam wa ëpp xorom sax ba mu yëkkalee Seydil Hadji Malick maam Hadji Malick ba mu lekkee ba noppi joxe bolba ba daara ji xale yi ñi nga xamne ñoo nekkon ci daara ji ku si lok rek yabbi ci la soxna si doga xamne xorom sa ëpp na waye xol day ram di ram ba fekki Seydil Hadji mali famu tok pour lool yi wax la da ngay tagat sa bakken ci lu neex yooyu neex yoy ngay bëgg mo lay yobbu ëlëk ba duggal la sa digënté ak sa borom motax tax Busayri la lay jangal ci walu bakken rek noko ko rek mooy wàllu mbëmbaay bi ca la ma la wax démb ci maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min al mursalin walam naku nutximul miskin waaye wakun naa naxuddu ma al qaidin foofu itam dafay ñëw topp mbëmbaay mi rek loolu yëpp ba la tey fi nu toog nii am na ñoo xam ne nii lijjantiw ñu weeru yont yàlla muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngay programme yi seeni programme moo tax foo nekk fa yonent bi tëdd am na ñoo xam ne fa la tëdd de mais ñu ngi fay def lu mais ñooñu seen bakkan rek la topp seen bakkan la ñu topp guddig yonti yàlla Muhammad moo tax Seydil Malik teel layal alaa azimu laylal wiladati xisbatan waaye isa lam yakun naxwa alxaraami al adulu waaw xam nga moo khalifa xalifa bi tam jaar foofu moom sunu khalifa bi yàlla na ko fi yàlla yàggal fa maam Haaji Malik jaar fa la jaar te mu bañ a rax bàkkaar la Maodo wax waaw feebar boo xam ne koy yóbbaale kooku day indi bàkkaar day indi bàkkaar te moom xoolal sëriñ bayu Mansour kenn daawu ko dégg kenn masu koo xam waaye li mu boot fi mu toll nii lu waay yëkki rek yàq ko ko te kenn masu koo xam de waaye li mu gàddu la nag il faut ñu koy wax te wax na ko sànq si benn audio bu ma gis ndeysaan sama xol sa dafa jeex ndeysaan mu ne man kenn xamu ma woon kenn xamuma waaw waaye li ma nekkee rek tax na léegi lu ne ñu ma koy wax est-ce que cat sax lu ma topp billahi loolu la wax sànq si audio bi te loolu lu wér la mm. moo tax gis nga nit ñi kenn mënu leen teree wax waaye foo tollu na nga sàmm sa bakkan bu sey di li muy jàngalu rëy la ndax lépp tamit yonent bi la lay jàngal yonent bi dàqoon na mun ñëpp yonent bi mënoon ñëpp moo dàqoon na mu ñëpp tokk xool la mu daj ca màkkatal mu karama moom yonent yàlla muhammad juddoo fa màgge fa defe fa lépp ñu xëy génne ko màkk mu ne xaaral ma daw dem taayif rawale sama pas-pas maam xaaji malik bind na ca la mu daj ca taayif nee na rus na kaa nettali ngir mitit wo xamante ne yalla muhammad jot nako xolal ñukay boole di ko sànni boole ko xale ya boole ka dof ya di sanni sànni kan la andal sa mam Haaji Maalik nee zaid ibn ibnu la andal keroog moy paré xeer ya di paré ba ben xeer rëcc dal ci oumu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal keroog ba deret jey war nga yalla ne jibril demal nga ne nabi deret ji buy laal suuf diggante taif gep ma alak leen nabi di màpp nii bañ deret jawante waay koo gor di màpp bañ deret jalaal suuf keroog mu ngi togg taxaw ci taatu salaan salaani naan yàlla lan laa def ba ñii mënuñu maa bëgg di di wax ba ranga ñëm di tuuru ci dënnam te xoolal tey taayif boo fa demee ñoo ëpp jullit jibril ñëw mu nekk déedéet neel yàlla dañoo xamul ëllëg xëñ na dina ñu jur lu ma gëm demal sa dëkk ba tey lépp fa am mu daj lu ne ba ni mu dajawaat fatxu mag bëgg a aj di xool nii dem ba kaaba gi demoon na ba kaaba gi nekk en commun kaaba gi dem na bés mu feebar kaaba gi bës am na mu soj ndax lan yonent bi di ko seen nii ñu ne ko doo dugg mu wàññi ko war xam nga loolu mitti na loolu mitti na torop moo tax keroog xoolal ci wax la rek ci toppul bakkenam ak li ko yàlla defal lépp moom yonent yàlla muhammad keroog ba mu wootee woote na ne waaw ñëpp dajale ñëpp ay baytaxam ñëpp la dajale wan wanzir asirata kal aqrabi gis nga aaya ba mu wàccee yonent yàlla Muhammad dafa jaaxle lu ko jaaxle yàlla ne ko wooteel bu si dugal kenn bennu sant njëkkeel si say mbokk waaye tàntaam luñ ko wax woowul ñëpp de waaye wala tunxabuloo aba lahabin ku la bañ la te boroomu sos la daal jami li kaayaatu yàlla yónni naka nekka na oo ñëpp bu mu bàyyi mais ba mu dajalee ñëpp moom yonent yàlla Muhammad xoolal ni mu def rey benn gàtt teg ko mu ngi mel ni mu oo Madine oo Cité oo ñëpp ñu ñëw ñu nekk ko yow Abu Lahab ne ko yow noobul gi nu doon kilifa yi nu doon nga oonu nun yëpp nu ñëw tegal nu benn gàtt yow dang nu yëpp mais ba ñu demee bay lekk sang ba ñëw ak loxo bu tedd ba teg ca gàtt ba ngañam ngañam yi la muy ngañam ngañam yi teg gi Cité moo lekk waa lew na lekk nañu ba Australie lekk te gàtt ba mel ni dara jógu ca mu pare na leen waaw su ma leen waxee am na benn armée boo xam ne mu ngi ci ginnaaw fii te dafa bëgg dal sunu kaw ndax di ngeen ko gëm ñu nekk yow loo wax dëgg la fii nga juddoo lu ñuy dénkaane bañ mu réer yow yonent Yàlla Muhammad lañ koy dégg lu ñuy wax bañ mu senn yow lañ koy wax yow rasulillahi yow loo wax dëgg la waay mu ne waaw su ma leen waxee yàllaa ma yónni nag ndax di ngeen ko gëm rek Abu Lahab jóg tas mbooloom ali haza jamata yow yaboonu yow dajale sa moroomi baay ak sa moroomi naan yàllaa ma yónni rek tas mbooloo ma te moom moo taxoon mu ragal de ba ko yàlla ne wooteel abu lëhëb moo taxoon nabi ragal waaye ba mu tasee mbooloo ma rek ah yàlla wàcc ama abu lëhëbin tabat ajaaba lisa tabat yadda yàlla wàcc tabat yadda abi lëhëbin wa tab maa axna عنه ما له ما كسب وسيسرى نارا ذات اللهب وعمرأته حمالة الحطب في جيدها خبل من مسد تبت دقنا نبي نوبل دي يدا نياري لخي أبو لهب ويالا دنك دق مكوج من ديت بوديجي من تبت دقنا يدا نياري لخي أبو لهب دوتر وقت اللهم بوما بوما نانغو واو كوي قام ندنغي تالل سي لخو بوي نيان تدوتو وقت اللهم بو يالا نانغو سي لخو دقنا نوبل مصطفى وطب ألق مدومك ما أعنى عنه ماله alal jaka tax a beew ba mu yëg boppam topp ba kenam lépp safara laa ko jëmee waaw yàlla ne waaw wa am raatuhu ñu ne yàlla pour pourquoi nga wax wa am raatuhu te boobu soxnaam newu fa ñu ne yàlla lu tax nga ne wa am raatuhu soxnay abu lahab yàlla ne xam naa lu ngeen xamul am na loo xam ne mën na leen umpa waaye man du ma wa amraatuhu soxnaam sa xammaalatul xatabi mooy ka daan jël matti ndëg ya di ka lal ci buntu kër rasulillahi mu war a dem jàkka ja fii ci cité gamoo julli ji moo daan lal matti ndëg ya pour nabi jokki ci tànk yay dagg mu ne loolu umpa leen wa amraatuhu moo tax yàlla boole ca soxna sax di tax ñu ne pour pourquoi parce que fekku fa soxnay abu lahab toogu fa waaw lu tax mu boole ko ca saar ba mais ndeke na yoo soxnay abu lahab moo daan def loolu rasulillahi wa amraatuhu xammaalatul xatabi fii jiidihaa na xablum min masati yàlla nee ne bu ëllëgee chaîne la ñuy jëlee ci jahannama di ko kor ci loosu jabaru abu lahab ñëpp taxaw di gis ñu naan lii la la mu ne man maa daan def jëf ju ñaaw ji bu nabi daan jóg fajar pour dem jàkka ja maa ka naan def lu mel ni waaye kooku nag lanu yàlla royloo daj lanu ne moom yonti yàlla muhammad te boo daan séddale xañ ko suy séddale day sédd ñëpp bu desee ma dolli la moo tax kooku mooy yaakaari àddina ak àllaaxira moom yonti yàlla muhammad moo tax Pape Maodo si naka lan Pape Maodo ci bind ci moom benn xasida bu Cheikh El Hadji wax ne nature bi sax day jooyi ci yont yàlla Muhammad bi xud dégguma la de inna tabiata kullaha hiya naxmatun yow yonen Pape Maodo si mu ne inna tabiata naka nature bi kullaha mu ne nature bi yëpp naamatun mu ngay way mel ni kuy chanté Pape Maodo la lay chanté qudsiyatun sufat ma ala alaani sufiyatun si anam gu sell sufat mu ngay jib maal alqaani ànd ak air ya muy woye sa risaala bi yow yonti yàlla Muhammad bi qudumi taaha xayri man wati assara ñu ne Pape Maodo si Abdou la way mu ne bi qudumi taaha moom la yàlla tudde ca saar sa sóoratu taaha moom mi nga xam ne képp ku ma sa teg sa ndëggul tànk ci suuf yonent yàlla Muhammad moo la gën wa takaxalat li jamalihi l aynaani mu ne wa takaxalat tus ngalu na aynaani ñaari bëti ku ne ci nun li jamalihi ngir taaru sayduna Muhammad هتفت بها الأشواق نحو محمد باب دقم هتفت بها الأشواق نحو محمد هتفت بها الأصواح نحو محمد كوكما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما هتفت بها الأشواق نحو محمد موي محمد رسول الله والذين معه أشداه على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيمعهم في وجوههم من أثر السجود سيدنا محمد رفت بالأسواق نحو محمد ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أعرج شرعه فآزر فاستعزل فاستوى على سح يعجب الزراع ليهزكم الكفار وعدل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم معفرا وأجرا عظيما هتفت مورسنا هتفت بالأسواق نحو محمد ينجن النبي دمنا بجاخله بقى يكشي مونتاني مكة bëgg a jël yaramam wa fi justil ardi wàcc ko ci suuf xam nga la moo taxoon dafa am lu ñu ko laaj mu ne gars yi dem leen ba suba bàyyi yàlla yàlla génn ci moom ne ko comme man nga bay demal sa bopp Moustapha bu gars yi ñëwee suba na tontu ñëw ku sopp sayyiduna Muhammad defal ni tafat bi al aswaaxu naxwa Muhammad gars yi xëy suba ñëw di jël sa tontu tontu ñëwul yont yàlla Muhammad na leen demaat leen ba suba ah, tafat bi al aswaaxu naxwa Muhammadin nabe jaaxle na yéeg ca montagne Makka ya nara jël yaramam wa dóor ko ca suuf sayiduna Muhammad tafat bi al aswaaxu naxwa Muhammadin yëg nga ne sama yaay Moustapha dem na bay dem waaye jibril moo ko fekk ne ko ey Moustapha taxawal waaye yow la gaa yi yaakaar hatafat bi al aswahu nahwa muhammad si la ko yàlla yónni ne ko jibril dama nga ne ko wadduha wa layli isa saje ma wadahaka rabbuka wa ma xale wala lahiratu xayrun laka min al ule ولسوف يخطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجلك ضالا فهدي ووجلك عائلا فأهني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث مصطفى هتفت بلا سواخ نحو محمد نبي دلوسي من هتفت ينقلنا بيل أسواق شفل من باب مودة fu mu jëm mu ne naxwa muhammadin ca borom barrière or ba. fa ajabtuha wal qalbu fi yamani. nee na ba mu yëngoo fa ajabtuha ma wuyu ko waaye mama boobu yëpp gëlëm naa ngir sopp Seydina Muhammad. Serigne Maodo si nee na boobu faw naa ka. nee na faw naa ka foofu. قد أدركت سر وجودنا قد أدركت سر وجودنا سلا جد سنو سكري إكزيستانس فتزودت روحي بكل معاني فتزودت مدلك روحي سما في كل معاني معاني يا من بيتمر إله ولآدم من يا من يومين حمني به تي ينتي الله محمد taaba ca la yàlla nangoo ak tuub li aadama yi ñeel sunu maam aadama yaa man bi taabal ilaahu li aadamin pa bu neel maa nahakuma rabbukuma an shajaratu in takuna in takuna malakayni aw takuna min alxaalidin yaa bi aadamin bi amul fu mu jëm yàlla ne ko uskun anta wa zawduka aljanna duggal aljanna yow aadama lépp yéen a moom waaye bàyyil ma big bii bu ko laal aadama ba mu duggee yëg nga ne aadama yonent yi iblis manul si ñoom dara xam nga lan moo tax aadama lekk garab ga xawaa soxnaam aadama dafa génne ba mu génnee iblis ñëw gis nga iblis ba mu ñëwee dafa oo xawaa ba mu ñëw tiimal xawaa ànd ak moom ci dex gi nakaan xawaa xoolal xawaa xamul dara xawaa di xool di gis jënn jëmm te xamul ne jëmmam lay gis mu ne gis nga aadama saa bu la tàggoo génne rek ne maa ngi aw côté bii dama ne la soxna si lay seeti te xamul ne moom ah xawaa boppam lay gis ba aadama nee tël mu ne ko waaw comme dangay ngay dof doflu ne cas garab ga dafa lekk rek yàlla pini ko si saasi ne ko li ubni yéen na kii kama at mayti sajarati yaa man bi tabal ilaahu li aadamin mu ne yàlla bu jéggalee maam aadama ci barke yonent yàlla muhammad la yaa man bi tabal ilaahu li aadamin yàlla bu jéggalee rasulillahi ba mu baam ya naawee mu wàcc ko fii ci adduna ci barke yonent bi la ko jéggal wa bi qalilu naja min an nee na safaras namrus ibnu kanaan ابراهيم بن كفو يجور تبارك محمد لموتي وبنوري كان الجمال ليوسف ويدقل فمو دموني اي تاربي ليهم تيونتي على يوسف بغا خمني بوربا سخنايا دجال يب jox leen ay lëjum ñuy dagga bàyyi lëjum ya di dagga seeni loxo ngir taaru yonent yàlla yusuf nee na taar piir rasulilaay moo ko moom fa sabat ilay jamaatin niswaani moo tax alaaji ma sol na la kooku muhammadun ajmalu man fil kawni muhammadun ajmalu man fil kawni lu mu ca di xalxan xalxan billaahi wa xuluxan wa siyam dama ne kannoo kama yashaas wara baari nasam xoolal loolu sa waay kii kenn du moom ka annahu dafa mel ni nabi ba ko yàllay bind maam Mansour nee na dafa mel ni nabi dafa taxaw ne yàlla samay bët na rëy yàlla réyal samay nopp na rëy yàlla réyal sama bakken daal bu mu am amoon na def nii rek na tàlli moo tax yonent yàlla Muhammad boo ko xoolee doo gis moonu comme sunu yosin di déedéet xam nga da ngay gis ñu ne diw bakken baa rafet wala nopp ya wala bët ba waaye rasulullah lépp a taaroo kooku du kenn kooku du kenn moom yonent yàlla Muhammad te xoolal sa maam Haaji maa nee na yooyu mu boole rey ba kenam yooyu yëpp mu boole moom yontu yàlla muhammad xoola yëg nga ne wal kax darabat yonente masul dóor loxoom tenq loxoom masul dóor jigéen waxtu wal kafu darabat mm. unusan wala dhakaran ما خادما عاب من عيب ولم يلو مصطفى وصليا يا إلهي وجزيا أبدا ووعنا محمدا المختار في سيد الحادي مالكنا والكف ما ضربت أنصا ولا ذكرا ما قادما عاب من عيب ولم يلوم صفا وصلي يا إلهي وجدي أنا أبا يننت عنا محمد مختار في القيد مصطفى والكف ما ضربت ضربت أنزا ولا ذكرا ذكرا مقادمنا من العيب ولم يلم yoon yëpp yoon si yàlla Muhammad sallallahu loxoom tenk loxo mësul dóor jigéen sàkkantuma góor góor sax loxo yoon si yàlla Muhammad sallallahu waaw kon kooku mooy sunu royuwaay moom yoon si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu yàlla bind moom moo tax lu yàlla amal moom moo tax ndax nee na li yàlla bind maa ca gën tiitar taxul ma wax ka nee na su tiital taxoon ma wax lu ëpp loolu te bala nga koy xam ëllëg mm. da gis gars yi toog ku jóg ci bàmmeelam dekki sukk ngir amatoo yaakaar nga gis ko la féeti ginnaaw na la pëg lan la nga ne ko damaa jaxle mu na la topp ma man rasulillahi sama maam Haji maa nee na booba jahannama mu ngay xëccu gis nga biir jahannama juróom-ñaar fukki junniy ceen moo tax suñu bakken yi nañ ko tàggat bañ ko tàmmal dund koo xam ne dund àddina la ngir mucc ci lële ndax juróom-ñaar fukki junniy ceenay langa ci biir jahannama ceen gu nekk juróom-ñaar fukki junniy malaayka ñoo koy téye teewul ceen yi di xëcc malaayka yi tarmi bi saralin kal asri ka annahum jimalaatu sufrun waylun yawma isin lil mukazzibin foofu nag leer mooy génn ci jëwu rasulillahi affronté jahannama di ko affronté ba jahannama dellu fa mu dellu woon kon nga xam ne yont yàlla muhammad mooy lépp gis nga koo mën a sopp bàyyil yëg nga ne nabi boo koy way di sóob sax yàlla bindal la tuyaaba soo koy way di sóob wala ngay wax leneen ci moom sax te du dëgg ci yow yàlla bindal la yiw moo doy noonu ndax moom nuurul minan nuuri xat aw datoo xikaman waaye tafiidu faydan ala al axlaaqi yallaahu waaye nuurul axatta bihi anwaaru xaajibatan anil xaqiqati kull al xalqi yallaahu waaw moom maa fil bariyati man lam tasqihi karaman min nuurihi rabbana yallaahu yallaahu moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom yàlla na nu yàlla def ñu koy sopp yàlla na nu yàlla def suñu cofeel ci moom yàlla nay gën a bir Seydi Hadji Malick fii la toog manul dem fekki ko fa mu tëdd toog di ko jooy di jooy ngir yont bi tëdd fële fa kayfa yatibul umru in dumta hauna wa hana allazi lawlaahu daa sabilu di jooy fii di yow nga tëdd fële yow sanga bi ma toog fii ci Sénégal ma dee moom a ko gënal man Seydi Hadji Malick moo taxit yàlla na nu ko yàlla fayal moo tax nu xam kuy rasulillahi moo ba sëriñ Babacar si li mu ko wéy yëpp ci yaaman ata ah bi xilaasin faiqin duraran xat jaxtama yuxjibu suudaana wal xurara zayanta mas nan ah, xoolal dem ba si bàyyi nakaan papp yow mii ah yaa tëgg yonti yàlla muhammad wax ci moom loo xam ne wuru su ni mu foore yow bàyyi wa baaru ilmika yax fi saa iluhu dem ba ci biir nakaan sa géeju xam-xam tefes ga bàyyi fala gaay yem te ku xool Seydil Hadj Malick li mu meññ wax naa leen ko ne leen sa kurusu taalibe cheikh cheikh Seydi Ahmada Tidiane juróomi doomi maam Maodo la ko defee doo cheikh ba muy nas kurusam sax juróomi doomi Seydil Hadji Malick la la kurus gi dindil kurus gi cheikh Seydi Ahmada Tidiane laa la wax ba muy nas kurusam juróomi doomi maam Maodo la ko nase du juróomi seede la Sidi Ahmed si du moo deewi sa saloni sëriñ Babacar si mu ngi nii alaaji Mansour mu ngi nii Cheikh Hadji Abdou mu ngi nii juróomeel baa ngi nii kan la maam Habib muy caatu Maodo jullaasuhu mooy juróomi doomi maam Maodo ya moom la Cheikh Seydi Ahmed Tidiane na sekurusam moo tax Seydil Hadji Malick li mu am yàlla moo ko defal yàlla moo ko may dafa bàyyi ñëppay xëccoo ci réew mi ku nekk ut sa bés ñu ne Maodo looy jël mu ne xaaral ma jël bii nag guddi juddug yont yàlla Muhammad nu màggalandoo ko àndandoo ko kon yàlla nu yàlla may nag ñu fekk guddi waaye nag leneen dina am de yënga ne bourde bi gàmb gi mu ngi doon jeudi lay doon lay tombel jeudi la gàmb gi di tombel te si jeudi boobu dafay garaaw mhm. waaw dina garaaw trop waaw waaw parce que maam Hadji Maalik dalay wax kañ la juddu ban heure la judu, wax la fi mu Iblis nemu mu doon def wax la wax la dafa dafay doy waar waaw guddi ajjuma tam lay tombeel ah te aju ajjuma ak guddik altine dama ne la dossier jaam yëpp tuubaalu ahmaalu ahmaluna xoolal dossier jaam yëpp ci loxo yont yàlla muhammad lay tegu altine mu toog nag ca kaaba ga lay toog tinul gaa yi ami bakar, mu jeudi boobu nag muy guddi àjjuma tombeek lay loolu arubati lay tombeel muy keroog ba leer ga génnee dugga kon ba neen affaire lay doon waaw kon hasard amul yàlla yàlla fayal Seydil Hadji ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ba tey yéen ngi ci seen eh, émission spéciale Mawlud oustaz ku dégg ni nga waxee léegi xel yëpp dafay dem ci ci sunna waaw ndax eh, sunna mooy roy Seydina Muhammad maanaam def lu nga xamante ne ni def na ko mhm. mbaa mu fekkee ko te terew ko te nii ngeen waxee nii léegi dëgg yàlla mhm. xel yëpp dem na ci sunna boobu ah, loolu waral moom rek moo dégg lu ni mel inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi waaw tax na ñu bëggoon nga ñëw tuuti ci ci sunna dëgg la waaw ah, sunna ah, tuuti rek xam nga sunnam mooy bunt bi ñu jëm suba mu ngay wax ci sunna insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla moom laa ko wax na que suba bunte ba nuy jàng suba diñ si dégg suñu yonent yàlla Muhammad bu baax ndax it euh, gis nga yonent bi nee na euh, ni may defee sax mënu leen ko ixtadu nii naxwa salaati naxwa xajji mis la rek la wax na ngeen ma rey ba ku leen gis xam ne yéen a ngi ma rey tabaarakallaahu yàlla yàlla nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mbokk yi comme ni ngeen ko doon déggee léegi yéen a ngi doon am seen euh, émission spéciale Mawlud Euh, nekk ñu nekkoon ci ci deuxième deuxième numéro bi waaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi sant bu baax oustaz Cheikh euh, oustaz Abdou Karim di nuyu de passage euh, Yuma ay Ba depuis États-Unis di nuyu itam président jóob Diop daayira Moxsinin wala Moxsinat di nuyu Ahmed Tidiane ñaan di nuyu Pape Cissé Pape Cissé depuis itali di nuyu suñu maire Fatim moo di Diop di nuyu tamit sama yaay maire Fatou si waaw ñu ngi leen di jox dig daje si beneen émission bi di ñëw incha allah. waaw nu dolli sant yàlla bu baax di gën kontaan tamit ci teew bi ñuy teew fii ak liñ fi doxal lépp yàlla na ko yàlla nangu na rek dañuy dellu ay kàdduy cant rek di ci jiital tamit néew bi tamit sama wéjur bi ma bàyyi kër ga ne ko yàlla ko fi yàlla yàggal ak ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel muy ki nga xam ne ni ma ko waxee démb ci moom laa dalee basin mi mara muy xaaji Idi Diouf di sunu papa ak papa Abdou Gaye Gassama moom mi nga xam ne ci jumaa ji la ne ko waaye ñoom ñëpp tey yàlla moo def ñu nekk ay mag di ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal leen fi bàyyi leen fi di nuyu sam sama soppe bopp ku ñuy wax Papa Njaay ak soxnaam soxna Tabara ñu leen nuy bu baax ci barkeen di nuyu tamit sama soxnay bopp waaw sama soxnay bopp mbay mbasu xam naa bu ko gars yi gisee sax ñoom loolu lañ may xase dama ñu ne ma yow yow foo kii rek tudd soxna si man leen tabaarakallahu yàlla yàlla na ngi ak sunu wéejur alxaaji Mouhamadul Moustapha Gueye yàlla na ko yàlla bàyyi sunu kanam ndax i tamit sunu dar su tey lu ci bëri ci moom lañ koy taataane ci barke yonent bi nuyu tam suñu yaay ji nga xam ne mooy kilifa kër gi yàlla na ko yàlla gën a may dund yàlla may ko si barke yonent bi tabarakallahu mbokk yi gis ngeen émission baa ngi noonu tabarakallahu ñu ngi koy tëj di ñaan yàlla yàlla na yàlla def ñu dégg te topp ko li ñu fi jàngale yëpp ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg am na solo waaye topp ko moo gën yàlla na yàlla def ñu topp ko tabarakallahu ngeen xaar ñu seen troisième buntu inchaa allahu di nuyu suñu kilifa suñu baay alxaaji Mouhamadou mustafa suñu yaay allah soxna yeb ñu ngi leen di ziyara wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh